ñu ngi koy gërëm bu baax. mu ñu ngi ndax bam ñu jàppee du tey. bam ñu jàppee. yàgg na suma na. sama papa mu ngi génn quatre-vingt quatre-vingt-un la génn àddina. te Malaw ñëw na ci kër ay lu ëpp fukki at. mu ne Malaw jëflante loolu dem. kon loolu yàgg na. mu ne ñu ngi gërëm bu baax. depuis 73 ba waaw te boobu ba tey. mu ne boobu ba tànkam. mu mu ngi mu ngi nekk ci ne. mu ngi nekk ci lim ne rek. adduna loo fi dafay jeex. mu ne adduna moom waaye suñu suñu ànd moom. mu gi. ànd gi dafay rek. day fekk ñu ngi dund. waaw yal yàlla def jàmm. mu ne yal yàlla def sutura. yàlla yokk ndimbal. def fa ñu ko ah président yàlla dolli ko ndimbal. mu ne président suñ doom la. mu ne la. ñu ngi koy ñaanal jamono bu ne. ñu ngi koy ñaanal jamono bu nekk. yàlla defal ko ndimbal. yàlla defal ko ndimbal. ci liggéeyam. ci liggéeyam. ba bu mu am benn solof solof. ba bu ko kanam. mu def jàmm ci dëkk bi. jàmm ci dëkk bi. def jàmm ci réew mi. def ci réew te mu leen ñuy seytaane. yi muy joxe itam. mu xam ne yaa ngi koy joxe ñu la ciy gërëm. ciy gërëm. di sant. di la ci sant. di sant ñi nga xam ne. di sant ñi nga xam ne. ñoo ko jox. ñoom moo dox sa ñoom. nga ko joxe. nga di ko joxe ñoom leen di sant. ñoom ñu ngi leen di sant. gis ba ñuy gis nit ñu baax ña seeni i doxalin moom lañ gis ci moom gis nañ ne gannaaw bëgg yàllaam gannaaw bëgg yónnentam bëgg diinaam nangoo liggéey xamit àqu nit gannaaw bëgg gi mu bëgg yàlla bëgg ko diinaam bëgg ko it ay dëkkandooram xam àqu nit eh, gis nañ ne mu ngi wane li yàlla gën a bëgg yàlla dafa bëgg ci nit mu am yërmande xam yéene te sow xam na yërmande ci nit ñi xam na yéene ci ñoom mu ngi cee jéem lam man lépp lu mu xam nangu na ko bokkat ñi nga xam ne ñooy ay bokkam ci dereet ci dëkkandoor ci diina ci réew mi xam na ci foo xam ne bu fa yeggee dootul xàmmeeti sax kii jullit ak ku jullit dëkkal ci réew mi rek lim am dana ko jéem a bokk ak yow moo tax ci gox bii ku nekk am na ko muy nitam moo xam nag ca daara ya la moo xam ca école ya la moo xam ca jàkk ya moo xam ca marché ya moo xam ca tool ya am na ñëpp ñaan li ci yonent bi wax moo ci nekk adduhaa u silaahul muhmin ñaan mooy ngànnaayu jullit ñaan it bi wax na ne mooy yuqu jaamu yàlla moo tax ñun joxe nañ ñaan démb ci jumaa ji ñaan bañ jullee ba noppi waaxu na ba agsi ci kër ga laaj ma nu ngeen def ma ne ko ñaan mu ne ma ñaan googu de suba war nañ ko feddili ba muy ñëw xam nañ ne leneen la ñëwee woon waaye bañ ba mu déggee loo rek na ma war nañ ko feddili kon réew mi ñaan daf ko sampoon ba fu mu mën a toll it ñaan a koy doxal ni nit ñi demee di wuti aw yet wuñ xeexee noonu lañu xamee ñun itam téere bii xamee ko ayatullahi xamee ko itam asmaullah pour ñu jël ko ñu it def ko muy armu ñuy ñaan yàlla loolu moo waral tey jataay bi bañ ñëwee manoon nañuy jox ku ne tiranga mu dem ñu ne waaye nañu wàccee kaamil muy xalalu yàlla ñu jaamoo ko ko def ko diye ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéene ko ci réew mi soow bëgg gi mu bëgg nit ñi def ci rawati nag ñi nga xam ne xam na ne ñoo yore téere bi daf ciy def kemtalaay kàttanam kon ñun itam dañ ko ñaanal kon toujours moom doaaw gi moom jogut ci leneen la may def nag yéen koy gis waaye ñun côté bii moom ñoo koy gis dellu naa def naa la ma waxoon muy lu leer nañ ku leen neex ñu téléphoné laaj ko ndax jot nga sa xar wala jotoo sa xar. waaw ñoom loolu ñëpp ko yéene Macky sàll ñëpp ko yéene réew mi ndax nag ñooro dañoo am ndam ndax toj yeeg deegeeg yëpp ñun yàlla musal nañu ci te yàlla na jëm kanam loolu bëgg Macky sàll ak déggoo nekk ay bokk yu am fulla am fayda su yar suñ doom yi moo ñu ko may ndax buñ yarutoon suñ doom yi duñ ko am ndax gone goo xam ne kii buy dem doo ko yëg lépp lu muy def doo ko yëg la mu lu ne mën na koo dal ci àll loolu moo dal ñeneen ñi réew mi nag faw ñu teg ko ci yoon dégg nga réew mi faw ñu teg ko ci yoon borom réew mi nag xam ne yàlla moo ko fal boo jiitee réew dang koy jiite ci képp ku am dëgg nga jox ko dëggam ku ñàkk dëgg nga xañ ko ko waaye yàlla kenn ëpp ko daraja ba ko yàlla di fal tàgguwut kenn léegi na bu ko yàlla falee ni nguur neexee mu dem ba gis ay borom daraja ba fàttali ko yàlla defal loolooy indi coono ci réew mi na teg réew mi ci yoon parce que fii waruñ fi war a yegg si ku wax lu nekkul dëgg dañ laa war a teg ci yoon nit ñaa ngi koy wax ci réseaux sociaux yi nit ñaa ngi koy def ñu di leen seetaan fu mu yegg état bi ñoo ko fa indi kon état bi war nañoo wax dëgg di def dëgg te xam ne yàllaa ko fal yàllaa ko fal bu demee nag ba gisatul darajaay yàlla ji ko faloon muy gis darajaay nit am ñoo xam ne dañ leen di woyofal am ñoo xam ne ca kaw lañ leen di teg yàlla wàccee ñu ñun ñëpp kon nañ teg réew mi ci yoon réew daay tegu ci dëgg ministre lu mu baax a baax boo ko falee ñaari at da nga koo war a ba mu dem waaye yow bu bonee nga denc bu baaxee nga denc même soo ko wàccee sax jox ko beneen poste teg ko ci sa wet ñu di ko kompaloo bët bu set guddeeg bëccëg di ko kompaloo bu yàggee du rëcc kenn àndu ceeg moom na xam li muy def tànk wëlbate ku wut comme kakataar na mm. meloon mu ba ko mm-hmm. melaat beneen melo mm-hmm. suñ demee élection yi dañuy sonnal suñ bopp na teg réew mi ci dëgg teg ko ci yoon mm-hmm. dégg nga na teg réew mi ci dëgg teg ko ci yoon ku ci nekku ci yoon nañ la teg ci yoon nañ la duma nañ la tëj ci kaso gi dégg nga na gëm ne yàllaa ko fal fekk yàlla wàccewu ko du wàcc na ko teg ci yoon su ko tegut ci yoon duñ dem